kodoo wal mar u waay masxuufun suñu soppoo loola ci ifraatil lobi jokkawul li nga xam ne woo moom murtabin ali halaku la ci lu jegeñ min daatihi ci jëmmam maanaam al jismu mi nga xam ne gis bu gàtt lay am rek doom jeex li ëpp ci nit ci moom lañ am kattan te dawul lu ko lu ko neex ci hissu mbaa lu ko neex ci maana te moom jëmm lu ci ñu sonn sonn diir bu gàtt rek dootuñ dootuñ ca am benn xalaat lu mooy gastam ba mu xóor rek ñu dugal ci biir suufi suul ba mu dayoon te aji sànq la moom nit maa lu xam ne law yobrahu du mu dañ day man ci lu sax maa woo te ànd moom ala marril wujubi ci rombam xam asarmati yi gay ko jub taw su ko mi nga xam ne mooy ki xam te du jeexati ñii ko sàgganee kon sàcc soo ko mën naa indi teraanga ju dul jeexati sàgganee ko mën a indi toroxaande ju dul jeexati li ëpp ci nit ñi seen gis-gis toll rek ak seen ngëm toll rek mooy topp jëmm rek ah, sàggane roo waaw ah, sàggane roohu waaw ah, ñoom daal nu ñuy def ba mën a am rek baax na nu ñuy ba jot ci suñ bëgg rek baax na nu ñuy def ba xëccoo cër sàngam rek ba jot ci cër sàngam rek baax na waaw nu ñuy ba fu ñaaw ñu leen bàq rek baax waaye ana nan lañ war a rafetaloo seen diggante seen ci wàllu wax wàllu jëf wàllu pas-pas wàllu jikko moom kay yëpp lay. wala ni mbaam rek loolu kon nit ñi di ëpp ci ñoom ay nit lañ ñoo xam ne seen i bànneexi bakkan rek lañ ci mel ni ay mel ni ay bahaim rek waaw moo tax nit ci loolu comme mbaam la lay ko loxoo ñaalut comme mbaam. himmatun bomm hitte bi shay'in ci dara ci lak ko toomul xab bi la ci ñax mu tooy aw lal mit wadi su tew ngay ñettam mu ne ci loolu euh, ni comme mbaam la mbaam ni nga xam ne buñ ko jóoralee ñax ci ñatt bi rek moom day jàpp ne bu lekkee rek jeex xawatul bërëm salaat bu muy salaat ne war na am ci dundam bi su ko defee ne am na ci nit ñi ñoo xam ne liñ jàpp mooy bu lu neex ci seen bakkan rek loolu pour ñoom ak àgg la ak sotti la ak fekkee la su ko defee foofu nag bu ko nit bañ ñu ko nit a lekk am mbaam ci baa imi ndax moom bànneexu bakkanam rek lay liggéeyal moom rek lay xalaat da ngay fekk mbaam wala lu dul mbaam ci baa imi tane ko ndax moom mooy mukallaf danañ ko nidalee du mukallaf moom nit ci sàgganee gi muy sàgganee te am kattan lool ci bëgg-bëgg jëmm ku dugal boppam ci wóoro bi la ba boo seetee yërëm ko sax ngay def balaa ngaa nekk da ko yattaka ngañ ñi moo tax ne waxal musarrifi للخفيف مجله ومذل بالطرف الأصيل الأصعد وحفيظ من هو للصداقة قائم وكأوم بالوت الصفي الأسلبي waa al musarrif hoona yërmande aji teral mooy ay goram ci kuy teral ku ne na teral du ko tax a sax nag lil xafiisi ñaal aji wóos mu jillihi kuraaji màggalam soo xas ba wóos dana wax a baax yow nga jàppoo ko muy ku kawe heure bu ne nga ko raafal ba ko raafal ba xas ne hee mu ne loolu daanaka la boo xam ne ku ci dugg su ñëwoo dala yërëm rek dala wax ay goreel ay goreel moom mi sàgganee ki muy sàgganee wàllu roobu ndég bu dawal bëgg-bëggi jismu taxawal gum taxawal boppam la ci buntu saxaawa ba nga xam ne yow boo ko xamee dëgg-dëgg sax boo ko nekk da nga am ñi koy yàtt waaye dañ koo yorob nga ay gorenti ay gorenti wa mu dellu di sorop yi kuraa ji sooxal borom ak sedd nga al asili kuraa ji cosaanu alaxaadi kuraa sax ki nga xam ne am na travail coofaat jàpp na ko mbir ba baax ba faaw rek moo xam waaw Moussa Gana ku ma sa wax loolu loolu loolu du ñor waxa fii man daa di wattu koo xam ne huwa moom xaayinun aji wurut la mu li fa baaxati xaritoo te daw xam kattan di kër kër yi koo xam ne ak loo mën a bokk ci yàgg yàgg jàmbu rek yàgg yàgg jàmbu rek waaye atoon nga ci moom lu ne nag waxtaanee bil wubbi day wuru wuru jaakoon borom cofal afafiyi gudaa ji sall al at lobi ko bu ñu fekk baax waaye borom xarit bu dëggu gi nag ki nga xam ne ko ngóobee dafa baax ba faw su baaxut ba faw dafa doon waa gu ngóobu foogoo fàggal day ab jàpp loolu la jullite loolu moo tax nee na aljaani bu roos yi ndeg sopp rek bëgg-bëggi jëmm kooku duut xam ki nga dox duut xam fii may roobu duut xam itam waru baru dund déedéet yooyu yëpp bokk lañ réere lu wéra si ma walu bàyyi hen xuuran xisaanan xurratan maruban bi adamin ci turaabi mudawwabi moom nit di sàggane ci muy sàggane wàllu roo ndég di dawal bëgg-bëggi jëmm dafa doon ko soxla lu dul dara bàyyi lu jar lépp waaw ci nangoo ñàkk lu jar lu ne ndég lu jarul dara waaw loolu mooy jëmbatool sa bopp perte waaw perte rek lay indi ba doon walu baaxeen aji jaay xuuran jongama yu doon wóor a fekk bët alxawaru li war wax day wax lool li war ñuul ñuul lool xisaanan e ñu doon rafet xurratan ñu day jongama xoruban ñu doon sopp seeni jëkkër mu da ko di xaatamin ci yax mu ba da saxeel ci tura bi ci waaw mën a ami jongama yoo xam ne ñu la mën a wéttaloo tey lañ ñu la mën a indil njëriñal ëllëg lañ ñu la mën di teral tey lañ nga nga sàgganee leen nangu leen a ab yàq boo xam ne dafa fum bàyyi sax nekk di ab yàq boo xam ne ay saxa ko topp yàq bi jarul dara mu sori la moo gën wala bu baax a baax fii jaroon nañ lépp bu baax ndax bul ko ñàkk waaw a dafa jar lu ne ah jàpp na ko dafa jar lu ne jëmm itam dëkk jarul dara ci buñ ko leeralee suufu comme lañ ko jàppalee daal comme lu mu xàttanee roobu ba roobu lu mu war a liggéey mu liggéey ko daal moo jaay doy ko ca xamee rek doyoo boo rek nga xam ne lii doy waaw doo de ndax ku noppi dafay de doo wax ne doo nelaw de ndax ku nelawul dafay de doo wax ne doo ne doo naan de ndax ku naanul dafay de kon jëmm moom it faww nag ñu toppatoo ko ba mu àttan ruuxu waaye nag boo demee nag ba lekk lu la dooral ci jaamu yàlla nag waaw ba naan lu la dooral ci jaamu yàlla nag ba noppalu lu la dooral ci jaamu yàlla nag ba nee na la ci jamono ba góorgóorlu ci yàlla nag waaw wala si la boo ko joxatee adduna kese rek ah il faut ñu toppatoo ko ndax buñ ko sàgganee baatanu roowu roowu du ci mën a nekk ba liggéey li war a liggéey waaye comme lañ koo toppatoo nag comme xaatun roowu nag loolu mooy wàllam la ca nañ góorgóorlu ci li nga ne mooy bëgg-bëgg ci ñun te mooy li tax mu indi ñu.

loolu la foog ne moom la dama ko xaw a fàtte waaye loolu la foog ne moom la ñu ko daan waxee wama staqalloohu wama abuuhu wa laysa bil qasdi fa yatlubuhu yaakaar naa loolu la ñu ko daan waxee ñu ngi fàttewut wali bàyyeen ak ñaal aw muy aji jaay xooran jigéen ñu da way rafeti bët way rafeti bët zaanan ñu da way taaru xurratan ñu day jongama ruban ñu way fas seeni jëkkër nga am ñii nangu ko ñàkk di xaatamin mu dawadin ba bu ñu saxeel ci tura bi ci suuf si day am yàq boo xam ne sax yaa di nox wali raataen ثدي الهوى واطنان في ليل سلامتي xaabi xin mutarabbibi ba tey rek ci nit sàggane ji muy sàggane wàlla roobu ndig tawal bëgg-bëggi jëmm wóora di yem koy dugal raane wali raata hen ak ñaal aji namp wali raata hen ak ñaal aji namp tadwal hawa yoonu bànneexu bakkan koo xam ne yëngatoom yëpp hawa nafsi rek mu daal mu ngi xalaat kama tahwa nafsu buy wax day wax kama tahwa nafsu buy dox day dox kama tahwa nafsu léppam hawa nafsi rek wat naa ne siraaji gëmmentu fi layli dalalati ci guddi réer ba tax lépp lëndam ak réer a ko ca jàll lépp lëndam ak réer a ko ca war wala tattabi' al-hawa fa yudillaka an sabilillah mu ne wóoru bi la nga xam ne borom tur nga di ko woote sax da nga koy yor xaagu pin kuraaji dajjitu pour mu wax te teg mu wax ci xam-xam du ko def wala mu muy fas te teg muy fas ci xam-xam du ko def moom kaw kuy wax day waxee rek comme ni mu waxee ci bakkanam ne na ko waxee rek kuy def day def comme ni mu neexee ci bakkanam ne na ko defee rek kuy fas day fas comme ni mu neexee ci bakkanam ne na ko fasoo rek boobu nag dalal du fa jógee mukk nag waaw wala tattabi' al-hawa fa yudillaka an sabilillah ورسولا محمدا إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد من يوم القيامة والحساب. قابلة في الآية تكفي mutaraddidin ku mu ji denc denc mutaxammiqin fi fiihihi mutasallifin wa mudabbabin fi nawkihi mutaladdidi mutaxammiqin ku daa ji dab ji ner fi fiihihi ci reylu koo xam ne saa su meree mel ni am kuy day fàtte lay adabam ndege topp meram waaw man ataa adabahu ataa adabahu waaw am na ma ku ko toppoo mer waaw wàcc yaram ñàkk yaram jeng mooy kuraaji jëfe nekk koo xam ne fu mu toll rek luñ ko jàppee ne xamu dëgg jëlaat ji moom lay li war a xam jàppoo ne mu dëgg nit ñi jëlaat jéem moom lay jéem moom lay jéem. ci koy doowaar la yoo xam ne la koy yóbbee nit rek mooy mooy ittibaaul hawa mooy sàggane wàllu roo wa mu sas ko bin te daa ji dengi dengi mooy ku gëlëm fii naw kii ci ndogam mutanabbidin kuraaji gëlëm waaw doon ku xam ne ngël ma ne jim nekkee tax na sax doo mën a xam foo koy classé te bañ ko fekk mu defee nii beneen mu defee nenee te dañ ko fekk mu waxee nii beneen mu waxee nenee ah te dañ ko da ngay dajeeg moom yow muy la wan ñaaw jikko muy la wan ñàng beneen muy la neexal ah dëgg la bu baax a baax façon yooyu dana nag lu baax moom démb mooy lu baax rek tey li bon démb mooy lu bon rek tey loolu moo tax ci baax war yu démb mooy da war yu tayam rek waaw li baax day bëree parce que li baax moom mooy li baax saa su ne li baaxul mooy li baaxul saa su ne moo tax bëree waa bi mbiri mu day mutaxammitin turaaji kat ji mer fii fii ci reylum dingal ma ndéem ci reylum loo ci wax rek baax na mutasallitin turaaji jeng wala turaaji reylu ba mu dabdabin turaaji deng deng fii naw fii ci ndofam mutaladdidin turaaji gëlëm batinin juddun yaahu basirin naaqidin متغافل في دينه متبلد حريد إذا ما سيم خطا جاهه وإذا يقام إلهه لم يحرد فتنم كراج قم بدنيا وجادنا بصير كراج قم رفاقا نتهم لك على الجيل أو ما تهم جبت نوزله ممكن هاي هاي لا waaw bu dee ci wàllu masala waaw mën naa fexe ba indi sa ay qaida yi jëpp laya laya lay ba si tom fa fexoon ah tolloo na ko si tom fa fexoon moom mën ko lool waaw wala wal nit ba def ko jigéen ñoom bët moom mën na ko lool façon yooyu bu ci wàllu muamala ci wàllu alal dafa mën na indi ay qaidaam ci wàllu fiq indi ay masalaam coow coow ba jëfee ca la bëgg a jëf ah coow coow ba jox la ci la ñu bëggoon a jox ah. wala ma wër duniya ma wër duniya war la. mutaxaabilin kuraaji sàggan ci diini yi ci diinaam mutaballidin kuraaji golom waaye nag moom nag ana nan la war a suuloo boromam nag ci liggéeyam nag ba doon na si comme ko waxee moom mën na ko lool wala nit ba bokk jigéen ñoom bët moom mën na ko lool parce que mooy bu ci wàllu muamala ci wàllu alal loolu mën na indi ay xaayitam ci wàllu gëtt indi ay masalaam coow coow ba jotee ca la bëgg a jot ah coow coow ba jox la ca la ñu bëggoon a jot ah loolu mooy mooy dunya mutaxaafilin kuraaji sàggan fii diinihi ci diinaam mutaballidin kuraaji golom waaye nag moom nag ana nan la war a suuloo boromam nag ci liggéeyam nag xaritin ku raaji toj ji mer idaa ma fiima bu toggee fee jawwoo darajaam ak fan tooñaange mu de koo xam ne bu gisee nga def loo niroog fonkadi ah bu gisee nga def loo niroog fonkadi ko te eh, dana ko diisalee lu ne ñaaw jikko gu ne danga ko ca xamee ci moom dana la ko wan ci cëlmaayam wala ko ci waxinam wala ko ci definam waaw loolu li mu bokk rek liñ gis ne mooy bokk ko rek waaw. léegi nag saamu tegu tooñee te ilaahu boromam la mu wax rek du mel waaye nag boo xottee war may diina nga daw lu ñu xaayee gannaaw man nga def ko bàkk rek. waaye wala ah kii dafa kii dafay reewaale rek ah dëgg waay waay dëgg dafay reewaale rek te fekk dafewul noonu. mais kon mer ngir yàlla rek la. wax dëgg yàlla kenn du reyaale fàtte hormay yàlla day jéem a xeex na droit boppam lu mu gis ne droit ak la yusbi wayulhimu bil ghururi musawilan ma anhu buddun min du'aahil xusurudi ويطيع ما استطاعه رب العرش من تعيين بأمر معاده وتزوده mu ne yufdi dana sàllay wa yulximu te dana jaray yaakaar naa noonu la ñaari baati daal benn bi sàllay la ko mag ñi de beneen bi jaray waaye xam ne tuma leer rabbkat ñoo leen xam man xaama ko suñu xuróor yi ci naxaat maanaam ay yëngatum yëpp ko daal foog itam àddina mujj dara boo ko fekk muy sëng moo ko tax def yëpp waaw boo ko fekk muy sottal ci lay sottalee rek mu saabu lan daal di jànkuwanteer maa lu xam ne xanuhu walis na ko bu dun dawaay min lu xaaxel kos rodi ci gàncaxam xuturut lu ha danay firi góoxam ndox dama ko waxaa lu ha danay firi itam gàncax xuturut mooy pegg néeg yi sax ci pegg néeg dañu xam ne amul benn solo xam nga tey bun bu nawetee dam taw daa gis ñax yi ñaan mbirum taw ka waaw dafa ci pegg néeg bi daf xëy bu nakkat yooyu noonu dang leen fee romb di liggéey boo nangu ñu gàllankoor la ñu tëy daa ji jëm waa doo nekk di ci dawal sa baaba ji di ko sonal yàlla di def sa engrais bi yàlla di def sa ndox yóor bi ndax da ngay xam ne la ngay ji te gàncax ga moom mënul la koy may kon du la gàllankoor te toppatoo gàncax ga li ngay seq ak moom daal mais bu demee ba xatal la nga jëm ko bale mu xam ndax sax a jot mu sax rek daa di luy jëriñ ci day ko ci nekk yoo xam ne dañ ci dëkk nekk rek waaye duñ la nag dañoo jëriñ ci dara dañ koy xamal su fekkee ni sa soxla yooyu nag daf ci dañu la def ba juróom benn fu nga bayloo ko def ci sa ngelaw bi di nga xëy di nga gont di de ñun lay def di suy dara ak ñu galawal la ñu jiyaa ay mbir yoo xam ne comme tànk ak la góobu dafa ci maa li nga xam ne istafa wattu loo na ko rabbinaa su borom arab min taawil ndaa la fam jëf la li amri maatihi ci mbiram jàll waayam wata sa yitin ak yëpp su ko defee li tax ñu indi ko fi te amee góorgóorlu pour métier yi njëriñ ngeen ëllëg muy ko sàggan muy ko ak xalit muy ko ak xalit في قلتين عروضة حسانة روض الخليل وحيث بون عكدي ومق لأبي ويحب فارس طريق لتلك على هوى لم يغضب في قلتين كبر ñaari xarit moom nit ci diggante jëmm ak ruux dafa mel ni ko ñaari jigéen séq xaroo botin kenn ki ku sopp jëkkëram la ko soxnatin ku rafet la raw del xadiidi kuy borom xarit mu ne kenn ki du ku ko bëgg du ku jonga maye te koo xam ne mën na koo dëgal tey mën na koo indi litam jiwu ëllëg barke ëllëg mu ne kenn ki noonu la mel subaa kon la ñoo tànnee nit mun ca koom waxaw sa góor ak xaw sa góor mooy njuuma keneen ki mel ni njuuma xel ki din li daal di jommale keneen ka di am màggat moo xam ne bu la jot pexe mu raw pexe mu bon rawee jeex na mais kenn ka da koo jeex koo xam ne pexe mu bon màgg def te loolu la ñaari jigéen a ko séq kenn gi ku jonga maye la naka noonu ku ko bëgg la te itam ki toll ci fi nit di su jigéen di amalee njëriñ nit la waaw mën na koo teral ni ki tey mën na koo amal mën na koo amal barkeeb ëllëg mën na cee xamee lu tax turam du daggati ba faw liggéeyam du jeexati ba faw kooku bu boobaa la ñuy taamoo jigéen yëpp mu ngi ci moom mu jar lépp loo xam ne jigéen jar jar na ci mbir la waxay soboonin kenn ki aji jommale la njuuma la al al ki din ku aji jommale waaw kenn ki di ko jeex soo xam ne xanaa daal xanaa daal fexe mu bon ma ko jëfe xanaa daal fexe mu bon ko jëfe waaw doo doo waaw soo xam ne suñ la joxee jar na wàcc balaa ñuy xool ne sax ndax buñ la ko wax. ah yoo xam ne buñ la doon kaay ko jël wala wàcc malaan bañ foog ne dox la ndax buñ la ko waxaat jar na ko laa tankihanna ajuuzan in du'ita laha واخلع ثيابك منها ممعنا هربا mu ne jar na wàcc malaan ñu foog ne dox la ndax bu la ko kenn waxaat waaw wa in atawka wa qaalu innaha nafatun wa inna ahsana nisfay alladi dahaba ak luñ la ko baaxalal baaxalal lu jeex moom la ca baaxalal baaxalal lu jeex la ca baaxoon rek wanu ku daa ji soppu li bi xay sa boon mu toog ko jëkk jaru baraka heure bu ne nag ah di wëkk wëkk rek ah muy ko lalali plan rek da bopp rek da ko wàqal rek ah waaye te kooka xibgoon aji wuruj la te kooka pexe mu bon moo ci def moo ca def lu bon rek lay def am sàtt la ko def rek da nax rek da ko wàqal rek taarikoon aji bañ la ko dul ko waxal am na yéene na ko benn jàmm ah ndax dëkkuñ lu mu ko yéene jàmm waaw kon kuntu raaji bañ li tilka sële Moussa ganee nag te jaroon lu nekk nag ala hawan ci bànneexu bakkan boo xam ne lam yox dat deeku ko dagg muy loo xam ne ak sago xeeb moo ko ko yóbbee waaye bu doon kuy liggéey loo xelam wala muy ku jub ku dëggu lii ko doon dal waa nit léeg-léeg sa ko bëgg jëmm dana ko xañ jëriñoo leeraat xelam dana ko xañ itam teg tànkam ci siratullahi almustaqim waane yëpp ay danse danse la ay perte perte la mutakaabilin an kulli xaqin ajizin mutasammirin fi kulli ma butalin adi mutakaabilin kuraaji tayal an kulli xaqin ci bépp dëgg ajizin kuraaji lot muy koo xam ne gannaaw mbir mi dëgg kefa la te xamatu ca kattan waaw gannaaw lii lu yàlla farataal nañ ko def kenn du la ca tàgg rek ndax boo bokkee ci liñ bi faaw nga def ko loolu xamu ca benn kattan loolu xamu ca benn kattan gannaaw lii lu yàlla farataal nañ ko la gannaaw lii daal waree xam ak parce que doon njabootam amu ci benn kàttan waaw bay àtt jàmbur amu ci benn kàttan ci xafata ñu koy woo amu ci benn kàttan déglam yooyu duñ ci tàgg sax yooyu duñ ci tàgg sax ndax dañoo xam ne waral na fan la gën a tàgg ah te nag moom daf lu ko war yu sori ak xelam na ci borom beneen na musammirin kuraaji wagu yo kulle ma gullum ci jokkone abin kuraaji xawat waaye gana am palana na ka cede aa na nit war koo fay fanweeri kenn du koo fay waaye mu ngay dem ca toma nag dafa may ay million yu kenn xamul wala mu ngi jël ay nit deen ko xay ngan kay den haji bañ na ci ko fay mu ngay dem ca Komaram dafa maye ay millions yu kenn xamul wala mu ngi jël ay nit seen dox ay man kay doon aji loolu bëgg ne mooy ajali nit soxla yu mel noonu yooyu amul solo amul solo nit dafa war a nekk ci li mu war a law kaana daa lubbin la awqana annahu ma kaana aw an dobi كلا ولا للخلد في الدنيا ولا ليكون أقصى عيشه العيش الردي بل منشأ في الأرض لا مستوطن لكن ليعبر نحو ذاك الموعد moom nit sàggan gi muy sàggan ci wàllu roohu ndëg da dawali jëm ci bëgg-bëggam ak kaloo xaddi la ci moom ak ñàkk basiira ak ñàkk sottantal waaye su soppan kaloo xadd na ak sottantal kon am luñ yëg ba defee ne leen wala law kaana bu nekkoon moom nit saa lu bind borom xel laa xare kon mu wóolu ne xam na roo naka moom maa kaana nekku mu um si aada su sos ko baatilan ci neen aw an tatin wala ci neen moom nit amoon xel dana xam ne duut ne dañ koo bind te binduñ ko pour dara wa ma xalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma baatilan mu ne asamaan ak suuf bi ak li ci seen diggante amu ci lenn loo xam ne dañ koo bind rek ci caaxaan loolu wax nañ ko mu bawoo ci kulul xel ku am xel ku ne loolu war na koo doy si sandekuwaay ne moom duut ne dañ koo bind te duut ne dara taxul te dara taxul te laaturu wala xamaluñ ko itam lil xul bi ngir pël ci duniyaa ci moom ñu soomee xel dana ko wóor ne duut suñ indi ci àddina bu fi ñëwee du fi jagati ba muy ko def ko loolu war na koo xam ndax du fi sor rek mu am lu mu gis mbaa mu am lu mu dégg wala xamaluñ ko ngir na nekk alxaysu dund arrati yi buraaji alaku xaq saa xaysu yi diggante ay sori yi dund ak itam moom nit bu amoon xel war naa xam ne duur ni dundam àddina bii moom rek moo war a doon dundam bu geneen dund dootu xamaat doo demee wut noonu waaw ah, ndax wax na ko loo leer lu topp la ne keneen dund dana xamaat wan nañ ko itam loo xam ne xel mën na caa gindee ko bëggam wax bi bu baax ayaxsibu linsaanu ay yutraka suuda ndax nit dama foog ne dañ koo bàyyi noonu rek alam yakun nutfatan min maniyyin yumna mu ne ban sottantu ndox la woon buñ sotti ci barab summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwaa mu nekk fa ba soppeeku lumbu deret nekk fa ba formé wu de nit fa jaala minhu zawjayni dakara wal unsaa su dee ku góor nga fekk yi baayam am yëpp mu am ko su dee ku jigéen nga fekk yi yaayam am yëpp mu am ko te benn soppantu ndox la woon bu bàyyee ko ci barab soppee ko ci barab alaysa dalika bi qadirin ala yuhyil mawta xanaa kooku war naa mën a dekkal ki ki dee kooku du mën dekkal ki dee kañ mën ko di loolu leer la kan li fi nekk muy sa un suñu sos la moom nit filarde ci suuf si laa mustawtinun duum waa ji moom nit dañ ko fi indi du dañ ko fi indee ne fii ba këtam du fi jógee waaye nag li yatura mu jéggi ndax wataakal mawhidi wàllu boobale dox waaye dafa am kuñ ne moo war a doog kër ga fii de jaarukaay pour liggéey la ñuy dundee ci kër ga bu liggéey bi baaxee nekkinu kër ga man ah, pour pour liggéeyu kër googa bu liggéey bi baaxee nekkin ba da nekkinu siraaj la bu liggéey bi bonee nekkin bi demee neneen nii moom la nit war a jàppoo àddina al imaamu Saafi'i mu ne inna lillahi ibaadan kutama mu ne yàlla mooy ay jaam ñu am xel ñu xam ne tallaqu dunya wa xaaful fitana ñoo xam ne dañoo ragal dañoo fas àddina doo ragal aw fi naas nafaroo fiiha falamma alimu annaha laysat li xayin watana mu ne xool nañ ko dañ ko xoolee ba xam ne du dëkk jaaluha nisjatan wattaxadu saalih al amali fiiha subula dañ ko rek comme ci di géej géej boo ko tolloo lu la ngay xelaat jàllin wu rafet bañ koo fuux waaye boo xalaat dëkk ba moo tax ñu itam li ñuy mooy luy lu leen ñuusal te yu xaram ñu ci àddina daf du leen ci fëkk ñuy xalaat li ñu def euh, di jàllale mooy gaal yi waaw comme ni ma gisee kër mën nañu ci biir gaal ba dañoo defaat ne comme a ñu def jëf yu

هو الذي جعلكم الخلائف في الأرض ودغee ñu indi jëf yi yombalal ko ci dund raggatal ko li ci suuf yi su ko defee ñu am liberté jëriñu lépp ci suuf yenn yenn mbir yi nga xam ne sharia bi kal na ko fii su ko it mu am yuñ ko yuñ ko tim ñu mën na ko sàmm ci biir am yoo xam ne tànkaatu nañ ko ne laal ci nekkam mën naa wax ne waxali ko seen li yasira fiha siratal mustaxlabin mustaxsabin wa xalifatun xalifa la moom nit mooy tuutalal sama borom la moom nit ci suuf li yasira ngir may tax fiihaa ci suuf si siratal mustarlafi wa ina tunhiital al mustaxsabi ba de suñu wattuloo al mustaadi ba de suñu fenk su ko defee roo liñ doon wax ne lu sell la ndax dañ koo bind ci xam yàlla ak nangu njaam mu dencee ci xadra bu sell suñ ko jëlee moom mu sell moomu boole ci ko jëmm mu sell feñ ndéy moom la sellal jëmm ci sellam bi dañ naan xena buur la xame ndax biir bi mooy nit ki nga xam ne jikkoom doy na jikkoom doy na xam-xamam doy na jëmmam doy na su ko defee ci doy doy yooyu ci lañ ko jiitalee def ko ci kanam nit ñi dooleel ko ci doyam googu ak dooleem jooju bu ne ci sàmmee nit ñi ba bakkan yu mujj deret du ko gaaral bakkan yu mujj yuñ caaxaane dekkal ba askan yu mujj ba alal yu mujj ba der yu mujj waaw deret dañ mujj xel yi dañ mujj alal yi dañ mujj der yi dañ mujj askan yi dañ mujj loolu mooy xenam moom buur boobu ci biir ñi nga xam ne ñoom la am doole ci seen kaw war di leen ji ñu topp ci kawam xel boobu nag mooy xelal buur bi moo tax loolu ak buur la di jëmmi nit jëmmi te ak nguur boo xam ne moomee la buur su ko defee lépp lu buur di am ba mën a liggéey moom ruuxu am na ko ci jëmmi te buñ la waxee ne yow yaa def buur bi topp si rek dañ lay jox doole yoo xam ne ci ngay mën a tëgg ba xam nga bu mën a xilis ñu nga buure ba xam kaataay nga keneen du la sang bi mukk ba la yàq waaye buur mën nga ko buur yaa ngi armé yoo xam ne moo koy moo duñ ne yow yaa def buur bi dafa am koo xam ne sañ sa sañ sañ fa lay nekk nga ne ko doxal waaye man laa def buur te buur wooy ñenn duñ ne yow yaa def ay takk yoo xam ne sañ lay taxal service ci biir li nga moom waaye mënoo def buur bi te lu ne yaay jóg ne yaa def buur bi dafay am koo xam ne moo lay jàppale ci doxal nguur googa dox ko diggante ak ñi nga guuru mooy kiñ naan wasiir su fekkee dara doxoona ci ñoom war a ci yow ci moom lay jaar lu ci xeelloo ak yow ak xeelloo nguur gi mu àggale ko lu ci xeelloo wut ak nguur gi ba xeelloo wut ak yow bu fekkee ni dara sa bawoo ci war a dem sa ñu nga tuure te koosa lay jaar koosa moo koy mooy saag sa ndaw la ko war a jotal ruuxu nag bu dee malik bi ci mamlakatul insaniya wasiir ko boolee mooy alhamdulilah dégg ko joxee sañ-sañ mooy taw nu bi lépp nit lépp lu ko soriant bi tal di taw nu bi am na sañ-sañu ndaw yi nga xam ne ñoo ko doxal ci taw nu bi moom roo mooy alxawaas turu xam lépp loo xam ne dañ koy ji gannaaw du lu ko soriant bi tal di xool ko am nga sañ-sañu xool ko lépp loo xam ne dañ koy déglu gannaaw dund la sariya bi kal ci déglu xam nga sañ-sañu déglu ko lépp loo xam ne dañ koy tóol gannaaw dund la sariya bi kal xam nga sañ-sañu konti ko lépp loo xam ne dañ koy mos gannaaw dund la sariya bi kal xam nga sañ-sañu mos ko lépp loo xam ne dañ koy laal gannaaw dund la sariya bi kal xam nga sañ-sañu laal loolu moo tax nit ñàkkul dara bu déwénee ak bu déwénee léppam rek yàlla jox na ko xalaqala ko lépp rek yàlla jox na ko koko xalaqala ko laa bil ardi jamii'an su ko defee ci biir muftaraat yooyu ak masnuaat yooyu ak madooqaat yooyu ak malmuusaat yi ak masnuumaat yi dangay liggéeyloo sa xel li ko ko déggee bañ ci liggéeyloo sa xel li am njëriñ pour defaru nit nga tigoo ko li amul njëriñ nga sànni ko li sa nopp di dégg dañ ciy liggéeyloo sa xel li am njëriñ pour defaru nit nga tigoo ko li amul njëriñ nga sànni ko li ngay mos dañ ciy liggéeyloo sa xel li ci am njëriñ pour defaru nit nga tigoo ko li ci amul njëriñ nga sànni ko bu dee jëmmal moo saat yéen noonu la bu dee ci yeneen yéen noonu la loolu moo tax roox malik la su ko kaw nu bi mooy raxayaat alxawaasul xams ñooy ci baax yu koy doxal ci biir raxayat yi mooy wasiram ana nag lu koy mooy nit ci heure bu heure bu ne bi ko xam-xam muy xam lu xam-xam yi la yàlla di yow mii nit ki mooy li booleel sa roox mooy li koy ba nga xam ne dana yor jafe bu baax moo tax nag malikun yuwaaziruhu alxijaar wa yumaddu min jimdin bi anwaari alxuyuubi mujannadi walkaainaatu raayatun tujba ila tafridi fikrin indahu mutabaddidi malikun buur la moom root bu xam ne yuwaaziruhu dana ko jaraafu alxijaar xel mu ne rooxu buur la kii jaraafam bi koy jàppale ci doxal nguur bi mooy xel moo dox digganteem ak rang ya jëm buur yooyu nopp na ko togg def na ko jox min jundin ci lël ba jannatin barabu ngelalee bi anwaaril xuyuubi ci ay leere xëybu li nga xam ne mooy li koy dooleel mooy xam ne borom dañ koy jox di ci mooy li koy mooy aar ci dëkk mooy dooleem mooy xamal wal kaayinaat way nekk yi su ko defee mboolem mbindeef yi rang yëpp ni ñu tàmm lañ sàllaw loo yëpp yu yu yu yu room suuru la waaw ah, suñ baa yooyu def na leen mangi ci la taqrib ci seen jëm ci sa satat xelaat en dafa ko moom mu tëdd ci suñ gudaa sa saaro yooyu heure boo xamee ne ay ndawam jot nañ ko wër ci lañ koy ëndil buñ ko jébbalee xel xel bu ko liggéeyee dana xam li ci xelloo nguur gi mu daal ko ko dugal li ci xelloo wala nguur gi mu daal ko ko dugal mu daal la liggéey su ko defee ci loolu moom roo ku degoon nit ki war a yomb la ndax gannaaw xam na doole doole bi mooy al anwaarul xaybiya yi koy dikkal gannaaw xam na itam kili yu mu buure te mooy kawnu bi gannaaw xam ne itam ay ndaw ndaw yi ñooy alxawasul xamsi gannaaw xam ne itam wasiir wasiir bi mooy alaqalu salim ci loolu kon moom rooxu doole ji yàlla jox ko sellal ci nit lu yomb yomb yomb lu yomb ba yëgatul la xam ne ndax dana soxlaati boromam bi bu yomboo ba yëgatul lottal ndax dana yëgati ne am na soxla ci boromam te jaam bu yëgatul ne am na soxla ci boromam rek xamal bu baax ne dugg na xalaat loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala su la mayee lii it dara dalay natt ci lii may gi dana nekk sa kàttan lay liggéey ci lu am njëriñ waaye natt bi itam dana la xeen ci ngay dem alil tiraa ilallah te sama borom saa soo ko waxee ci lisaanu lil tiraa il faut mu xëyu la xam na lu jiitu mu farra te daal di xam loolu moo tax faaw ñu nattu ko ndax it ba léegi def na buur bi su amee wasiir bu ko jàppale mu am ay junóot yu ko dooleel mu am raaya bu muy doxalee sañ-sañ am ay ndaw yu ko caa dawal service ñu ne mu ngi doxal nguuram waaye amagut waaye xanaa war naa am wala yu la war naa am doom joo xam ne ker bu bëgg a dee ker bu deexee moom doom joojo mooy xenu xen bi di ko ni moom mu ngi fi waaw bu ko dund gi day génn gi xanaa loolu war naa am wala bu mat loolu mooy tax moom roox bu amee yii taw dana soxla ku muy war a pour na am waliyul hayaati kooku mooy an nafsi sopp si moom la ruux di mën a ànd ci nit nit dooga mën a liggéey loo xam ne mën naa dee njëriñam des mën naa dee tiyaabam de bine comme ba muy kooku di nafsu nag xam ne moom la ruux mën a ànd ci jëmm bokk di dund ba liggéey lu demee noonu da di ko xam ne lu ko neex rek la xam te dëgg dafa weex ci moom su boobaa nag mën naa bañ a nangul roo yëpp ak nangul te nag muy ko xam ne moo gën a jege rooru ku ne gën a jege rooru ku ne nag dañu soxla ci buur bi rek xam-xam bi ci buur bi ah nekkul ci moom nag bi ci buur bi ah nekkul ci moom te diggante moom buur bi wasiir bi doxul ci jinne bi doxul waaw am na loo tegu tegu bokkul dana am lu may bokkul dana am lu may su ko defee loolu moo tax ñu boole ko suufu su ko defee ñu dind ci nit ak ab yàqkat buñ naan alhawa ñu daal da ko dooleel ak ay sayatin yu ko tar jox ko itam ay mbir yu xam ne ay bànneex la yu mën a propagandé kooku nag takk wujju roobu la ko doog ko def dara waaw roobu bu ne doxal rek dana yëg ne xam na ku ko kontor dana yëg ne xam na ku ko bëgg a yàqal waaw dana ne moom ku wàtte dimbande ko yàlla bu ko doxee xawaa xam na ne roobu xam-xamam bii wàllam bii su dee moom rek mënuma xam ci moom yoon waaye ki ko gën a dama koo xam amee mën naa ko cee na muy noppi bëgg laa wam yi mu bëgg su ma ko wanee rek dama daal di gis mu daal di jàmbu roobu ànde feeg ma waa yëfi bànnee lay wan naf ko rek naf ci ñàkk xam-xamam gi ak comme ni dëgg waxee moom doo yëg rek mu jàmbu roobu daal di fekki hawa waa roobu bëgg lu baax moo koy nekk waaye àndandoor bii tax mu mën caa yëngatu du nekk ci temps boobu da ngaa gis nit ki xol di bëgg lu baax lool waaye jëm ca da koy dafa mel ni daal sën nelaw tëb tëb waaw tolloo bu baax a baax waaw mu ngay wax ne waxawaa bi rab boppi baytihi فتكنف الملك البغاة مساير نهضا يهاب على السباب ويحتبي وهوى شباب بربة بيته كبرا نيجم ربة بيت الروح mooy an nafsu mooy ci roohu da bokkat de dund ci jëmm su ko defee jëmm jooju mën a su ko defee lu fi wam da def mën am kon mooy soxna si nga xam ne moom la buur bi dund su ko defee waliyul haadi mën a am kooku nag te dawal hawa huru jóg bànneexu bakkan kooku moom la saa saa boobu di wax hawa te nax ba propagande ko fexe rek xiir ko ci mu jàmburoo mu jàmburoo wasa taab mu songe moom hawa di jameen ci mbooloo mu xasadi mari muñ dajale mil hudoosi ci bànneexi bakkan su ko defee bànneexi ñàkk solo yooyu mu ñoddee nafsu ba xaajale ko rooxu ci la dëgg tooñ roo tooñ yu métti métti ndax lii tooñ la parce que kan la fa dal di fees almalika buur bi albuxaatu way doow yi subaane rooxu nag foofu pour mu ne na jot na jot ci nafsu nag xawaa ak sayaatiin yi ko dar dañ koo peeg ne du ko du ci joxe nga tawar waxtu wum sakkoo nax ban haajo alak sababi ànd ak njub yuhaada def na ko noonu te yox sat def na ko añaane ci loolu waa lum bëgg ci lu xam ne luy defar liggéeyam la rek ñoom dañ ko kaa xoñe su boobaa nag moom pour mu nangu nafsu min al hawa te wax dëgg lay def te wax bi nag li ci ëpp doole ci fi mbalal yàlla mooy ndimbalal yàlla bu ko yàlla defalee tawfiq moom ruuxu moom ruuxu dana mën a diisu haat alxaqlu bu ko defee moom alxaqlu ci ñaw gim ñaw danañ mën a tëral plan bu jag pour seen nguur pour seen xare pour seen kaadaanga waa danañ tabax dëkk bi dal de ko xaar ba du doyaati kum nga dugg lañ koy xaaree mooy waraam dana am koo ne dañ ko fal mu nekkal ci yoon waaw kenn du ko jéegéeti da def lum dogalul muy xaadi mooy alxelmu mooy alxadaala dana am koo xam ne dañ ko def muy mufti balaa ñoo dogal dara déglu ko ca muy al ilmu waa nit ki bu dogoone di ko xam-xam xawale lay xaw lii njub lay def lépp loo xam ne dugg ci lu leerut mën na ko caa fekk fa koo tax loolu bu nit amee sansam ba am nga ko ko doxal ak lu métti métti bu yàggee hawa dana néew doole bu hawa néewoo doole ruux dana mën a nanguwaat nafsu yóbbu ko ci booram nafsu am suma lii waaye ci ndimbalal yàlla dong nag ci la mën a sottee mooy in yansurkumullahu fala ghaliba lakum leen yàlla dimbale kenn du leen su fekkee at tawfiq min allahi amut nag moom ruuxu bu ko xawaa songee faw kuñ gañe rek lay doon waaw ndax wasir bu mooy diiku ba ñuy tëraloo nguur gi nii ba ñuy tëraloo palaan ak song am waaw nit ki bëgg lu baax rek du ci mën a jëm bañ lu bon rek waaye fokk wattu du am ci loolu lay nekk ci loolu lay nekk rek ba mujj rek xawaa day far jël nafsu rek ba li nga xam ne liggéey ba mu jaral doon sa sal mooy wa in yaxdulkum faman da alladi yansurukum min baadi léegi léegi nag nit xawaa danay ëpp doole ruux maanaam xawaa danay nangu nafsu min ruux yi ba mu mel ni mu ngi bëgg ëpp doole ruux inayatullahi dikk rek su ko defee tawfiix dal di dikk ni kuñ dabaatal ci gannaaw bu niroo kuñ doon bëgg a wàcc su boobaa rek ñu dal di gañe haat nafsu hawa nangu haat nafsu ci moom loolu moo tax ak jullit ala kulli haal dafa war di sukkandiku ci yàlla rek waaw njubadi koo def waru laa tee sukkandiku ci yàlla comme ni nga gisee aaya bi mate wa alallahi fali tawakkalil mu'min laani wasalat botil ardun hawaanu فيكن حضر المليكة وزير صدق يعبد مستنصرا بالرشد والتوفيق في غمراتها وقعه الجمع العدي وصنع جموعهم وصلل غربهم بغرار سيف من حجاه مهمد وطلب قلبي الحرب الهوان برد دبلي mu ne foofu nag xaro bu tàng mooy am nag bay na roog yi wal xaw ba yokkun bu nekkee na xadara di teewal almalika buur bi muy roo wasiiru fitxin wasiiru dëgg yoo dab def na ko dëgëral mu sanfiran biroom raaji dimbale ko ci rus di ci njub wa tawfiq ak bottale fi xamaratiha ci lëjji xare boobu wa qiraayi ak dóorante moom buur bi aljamaa mbooloo xalaat di yemu daa ji tam nag moom moom moom moom wasiir bi su fekkee rusdu xam na te rusdu mën da xam si lu dul tawfiq xam dana mën a ànd ak alxaqlu bañ toral plan bu jag boo xam ne dañ ca mën a xaaree nguur bi te buñ ca dëggee song itam noon bi dañ ko mën a tax parce naa mu wëññi ci moahum seeni mbooloo te sallal la mu maaxal mooy mu topp di xaar ba xum seen ñëw ka de xiraari say sin ci ñëw ka ak jaasi min hijaahu laala moom xelam la mu xam ne din jërëjëm hindal ci loolu dafa mel ni kon jaasi ak moo koy daasal jaasi ji nga xam ne moom lay mën a xeexee ba dàqal noonam yooyu li may mamlakatul insaniya mu ngi taxaw loo xaat ba tey rek ci yoonu si wàllu nekk yawmal qiyaama ku am kal xaatana ko waajal law kaana daa lubbin la ayqana annahu ma kaana unsi'a baatilan aw an jadi wa a'adda i'daadan wa a'adda a'daadan li yawmin haa'ilin wa sahiifatin sutirat wa ardin mursadi wa a'adda te mu qadu moom nit fu amoon xel doon na waajal adaadan ay xabi doon na waaj ay waajaay wala si adaadan ak ak xabi doon na waajala waajal li yow min ñaala bis hailin budaa ji tiitle ndeg bis bu ñëw seenu ci kanam mu nekk bis bu la rag wa sahifatin ak téere su tirat boo bindeef na ko ak téere buñ koy jox xollut da te liggéeyam dëgg ne su fekkee liggéey bu baax moom lañ ko jël bindal dañ ko ko jox joxe nu tiraanga mu jël ko ci xel mu dal ko ci siggi jàng ko ci kontante su ko bàyyee ko rek moo ca topp xiif di ko toppati su fekkee ay liggéey yu bon la ko feesalee suñ ko ko joxe nu toroxal ko lañ ko ko joxee mu jël ko ci gàcce ak jaaxle lool jàng jàng ko ci ay tiitaange ak day eh, ci ay tiitaange yi mu jël ko ci tiitaange ak jaaxle jàng ko ci gàcce lool su ca bàyyoo ko ay coono rek moo koy dikkal yoo xam ne ca di ca toppati eh, moom nit bu amoon xel nag eh, doon na bàyyi xel téeréem boobu la ko may jëlin wole fii la koy liggéeyee li ko may jëlin mu jox yàlla nañ ci yàlla musal fii la ko liggéeyee waa den ak baaral morta den ba de bu ñu fuubluloo comme nit boo amoon xel doon na waat